génnam bu njëkk ginnaaw bi nga xamee ne fal nañ régime bu bees kii di na Thierno Bocoum deselul dara nguur ku bees gi moom nag ay critiquam jëm ci kii di Ousmane Sonko bi ci njëkk ñeel lu jëm ci wàllum déclaration de politique générale. di nga constitution article 55 waxul rek na def déclaration de politique général dafa wax na ko def. devant l'Assemblée nationale bés bu ko defee en dehors de l'Assemblée nationale tuddee ko déclaration de politique générale ñu constater un coup d'état civil et on considérera qu'il n'est plus le premier ministre du Sénégal respectewul institution à travers son comportement respectewul les sénégalais. naka noonu muy ñaawlu itam génn bi nga xam ne kii di Ousmane Sonko génn na ko jëm ci déguerpissement yi nga xam ne yenn ci ay mairie ñu ngi koy amal. premier ministre mën a bind moom ñëpp di ko dégg mu ne boobu ba léegi ñu ngi di gouvernement bi mu ngi dégg. ñu ngi jële ay nit si di def ay déguerpissement gouvernement bi la te xamul na ne premier ministre de l'intérieur am. moo ko sabab y' a pas de coordination y' a rien te moom premier ministre mooy la moom moo jiite ministre yi moom moo war a créer loolu moo tax ñu laaj ko plan d' gouvernementale ku amul plan d' action gouvernementale si lan nga war a mën a pare Thierno Bocoum fàttewut itam bor bi nga xam ne nguur gi ñu ngi koy wéy di ko contracté donte sax ñu ngi ko doon ŋaññ ci jamono ji weesu waxuñu la bu leb dañ la ne pourquoi eurobond yow tontu woo pourquoi eurobond nga ne non dañ maa wax naa leb tey fii may wax ak ñeem lu ñu lebagum si ñetti weer yi defar na TER defar na BRT nga boole leen. quand de mille cent cinquante milliards am nga si TER am si BRT. mu mel ni kon kii di njiital mouvement bu agir dafa dellu si wat ci bépp jéego bi nga xam ne nguur gu bees gi ñu ngi koy amal moom nag mu bokk léegi ci kujje gi di fësal taxawaayam di leeral ne amul ci dellu ginnaaw. ba dañuy des ak Thierno Bocoum ndax daan ne addu jëmale ci secteur privé bi jàpp ne daal dañ leen a war a dooleel waaye li nga xam ne moom la nguur gi yees gi nekkee jamono ji daal bu ñu co jukkuul mën nañ tàbb ci ab nguuta mais tey ñoom politique bu ñu am dafa nar a dërmeer la secteur privé mooy dindi subvention yi naree bloqué prix yi parce que léegi loolu moo leen loolu la ñu la ñu nekkee da ngay bloqué par force suñ ko naree def ñu mun nañoo tëj te su boobaa on va perdre des emplois et on va désagréger le secteur privé dama leen di faral di wax ne la population active au Sénégal l'écrasante majorité est dans l'informel ñu siy góorgóorlu nekk dans le formel ñu néew lañ dañ leen war a appuyer dañ leen war a pousser mais ñii ils sont en train de mettre la pression fiscale si ñoom